auzu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaan rahim barkeb sëriñ Tuuba asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu mbokki mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki àdduna ñu ngi am mbégte bu baax a baax a baax di teewaat fii ci waxtu yi ñu ko waxtoo waxtu yi ñu ko tàmma amale at mu jot ci kër sëriñ Touba ci kanamu sëriñ Bassirou moom sëriñ Abdou Khadir ci ndigalu sëriñ taxa di waa waajtaayu ngir waajtaayu màggalu 18 safar muy bis boo xam ne kenn duutu ko wax kenn waaye nag jaadu na saa su waxtu yi jotee ñu yëgal àdduna bépp ne ñu ngi waaj jëm ci loolu moo waral jataay bii sëriñ bi woote tey ñu di seeralaat sëriñ bi di seeralaat àdduna ci ne nam ko tërale woon ci xalifa général des mourides joxe woon ko ni ndigal ñim ko àndaloon ñu ngi nii ci kanam ci ginnaawam tey ji Euh, donaat wenn say donaat ay taalibe ngir ànd ak moom liggéey bi ca nam ko diglee ca nañ ko war a amale incha allah euh, ñëpp it di ci am mbégte ngir amuñu lu gën a màgg bis bi mooy bis boo xamante ne it njaruñul ñëpp la jëleel naa jullit yi jëleel naa morit yi waaye senegal gépp ñoo ci jariñu àdduna béppit ñoo ci jariñ ci am njàngale kon nag sëriñ bi euh, bokk yaa ngi nii bokk taalibi yaa ngi nii niñ ko baaxoo de amala rek ñëpp ngi sa ginnaaw fas ko yéene ànd ak yow euh, ba keroog nga naanu nu euh, jaa ngeen jëf saa su la ne sëñ bi ne jaajëf rek nga noonu jaa ngeen jëf ah ñu delluwaat ci suñu yite incha allah loolu daal ci gàttal lañu amoon lu ñuy wax rek. di santaat yàlla bu baax di julli ci nabil Moustapha di santaat Serigne Touba di santit nag yow mi jiite liggéey bi ci xajal ci ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullah wa barakatuh